na ñëpp abonné te déglu parce que véritablement bëgg nañ fi wax lu nga xam ni dina jëriñ askan wi. il faut que les choses soient très claires Ousmane Sonko du ku ñuy làpp ña ñu doon làpp ñu nga leen doon làpp population bi xaar ñu leen di làpp te defe naa moom ca ña ñu doon làpp la bokk kon tey bu ñu demee ba nga xam ni yàlla dogal na nit ku am jom am fulla am fayda am fit am ngor taxaw ci kanamu sénégalais yi ñëpp wóoru ko. alhamdulilahi rabbil alamin mm-hmm. bu laajee xaalis cotisation ñu jox ko muy ni nga xam ni parti politique noonu la war a doxee cest à dafa am na mu dundee woon bu yàgg ba mu ñu nekk dans une situation de perturbation politicienne bu nga xam ni véritablement Sénégal yi gisuñu seen bopp léegi nag dañu gis seen bopp si euh, façon doxalin nit bu nga xam ni nit ku indi lu bees la rupture boobu ñu ngi ko doon xaar waaye gis nañ ko ci ki nga xam ni tey bu laajee euh, nit ñi cotiser ñu cotiser bu ko defee euh, parti politique dellu ca la nga xam ne moo taxoon ñu tëgg ko parce que dañuy financement parti politique dafa war a jóge ci ay cotisation de ses militants kon tey loolu taxaw na donc ki nga xam ni moom dem na euh, wax lii tey ëllëg mu wax lee ba pare bëgg attaqué ki nga xam ni naan dama koy làpp ak bu doon man ak dama koy jëleeg yooyu attention Ousmane Sonko xal bu tàng jër la jëloon nañ ko mais dañ koo wiccax euh, jël boobu defe naa du yomb il faut que les gens fassent très attention il faut pas que président Macky Sall waa ji di la dugal ci looxoor parce que am na yoo xam ni dama ko daan dégg du ma xam pourquoi président di jël yenn décision yi mais nag ndekete boo àndeek ñu nga xam ni au fond dañu lay soo bëgguñu la ñu ngi wax di def la ñuy wax di def Euh, boo xoolee da ngay nekk ba sa yàgg ñu seet la sa suufu kàmb ga bu ko defee ñu taxaw di la mbëlee am na ñu mel noonu. aujourd'hui la donne a changé la ñu mënoon def en deux mille tey mënuñu ko def en deux mille vingt trois nous sommes en deux mille vingt trois nous sommes à l'ère du numérique. numérique dafa yee xale yi en plus de l'éveil de conscience bu nga xam ni population euh, politiciens yi ñu ngi koy def ak enseignants yi ñu ngi koy def ak képp ku yee nit sëriñ sëriñ yëpp ñu ngi koy def internet dafa ñëw di gën a nit ñi encore di may jeunes yi ñu am possibilité de comparaison cinéma bi daan am en 2000 cinéma bu njëkk nga xam ne euh, homme politique day taxaw di def cinéma théâtre loolu amatul boo ko defee kenn du la faale boo ko defee ñëpp dañu am droit à la parole boo ko defee Cheikh Bara Ndiaye moo lay tontu boo ko defee ñeneen ñi nga xam ne bu njëkk xëy na amuloon droit à la parole ñoo am droit tey à la parole ñu génne les valeurs du Sénégal les valeurs sûres nga xam ne ay nit la ñuy nekkoon ci ay daara maa ngi nuyu en passant le MODAP mouvement des daara mm-hmm. nga xam ni wax dëgg yàlla euh, patriote donc di leen encouragé di leen wax ni am nañu solo lool ci xeex bi ndax am nañu doon nëbi nañu def attention heureusement j'ai pas écouté la cassette dégg naa trois heures de temps la mais képp ku attaqué parce que di nga fekk bi na ko jëloo loolu c'est je n'attends personne la permission de personne je réponds parce que boo attaqué Pastef mën nga attaqué parce que moi je euh, mm. sama loo sama sama làmmiñ nekkul sama te lu wax lu am sens lay doon du lu nga xam ni dañ koy wax di sànni li ñu war a tal tey mooy Sénégal fii mu nekk li ñu war a tal tey mooy secteur informel bii nga xam ni yàgg naa ko wax 97 pour cent de nos entreprises sont dans l'informel totalement dans l'informel et ne fournissent que 3 virgule 16 euh, euh, euh, virgule 3 pour cent du chiffre d'affaires global des entreprises ça veut dire quoi ça veut dire que liggéey mi ngi leen di xaar nañu dem liggéeyi liggéey boobu mooy tax Sénégal mën a am jàmm liggéey boobu mooy tax jeunes yi mën a liggéey waaye liggéey doo ko jël jox ko extérieur mu wóor la ni yow tali nga xam ak infrastructure bu mag nga xam ne boo ko indee dafay am lu may tuddee surfacturation à chaque fois bu ko defee nga mel na yaa ngi liggéey fekk dafay foog loolu yëpp dañ koy war a teg ci kaw suuf man damay wax ni développement bi ngi jóge ci secteur primaire le candidat le mieux placé xale yi xam nañ ko te ñu ngi koy topp guddeeg bu teg suba ak ngoon sénégalais xam nañ ko te bëgg nañ ko guddeeg bu teg suba ngoon donc euh, ñooñu mu joxe exemple li ma bëgg ñëw rek mooy ñaari exemple yi parce que bu waxee Ousmane Sonko moom mënul wax ni dañ koy topp benn dër xëy na ay tuumaal na te tuumaal yooyu ba léegi amuñu benn preuve bu tegu ci table bi bu wane ni loolu dëgg la te lu ñu am preuve jusqu'à l'extinction du soleil comme ni mu doon wax mais moom damay wax ni. ñii muy jéem a tuumaal mais la mu jël ñoom jëluñu ko justice topp la setal la ngeen def dil ñu génne la justice ni kii nga loolu yàgg na fi mais dama lay wax am na yu nga xam ni justice du ko gis tali bi bu fekkee ni jox nañ la cent million ni la def ko ci cent milliards nga ñëw def si cinquante milliards jël marché bi am koo ko jox koo xam ni véritablement sa xarit la waaye nga signé cent milliards bu mbir mi ci guddi jotee mu ñëw jox la cinquante milliards ci kayit yi cent milliards nga signé loolu la ñuy wax surfacturation loolu la ñuy wax partage de privilèges et de prébende fi yàgg moom c'est le chef suprême moom les chantiers yi ñaar lañ ko doon ji loolu yëpp est-ce que justifié na ko mais justification sur les papiers papiers c'est facile loolu tax parfois ñu ne indi preuve indi preuve am ne peux pas prouver que c'est nekk parce que commune bëre la. saa à dire da nga cay am ma am ca bu nga mm. defee population bi ñu rey leen ca ñaata tali lañ fi defaroon tey boo si dawee mu toj les population bi du ñu expert en matière de route bu ñu boo defaree tali ñu rafet dañu naan rafet na waaye Cheikh Ndiaye maa ngi lay nuyu yow mi nekk mbuur defe naa keroog bi ñu jaayee jaaree ci tali Thiès yi yow expert nga n'est-ce pas ingénieur ci affaire tali da nga ni boo dawalee sa oto ci kaw tali bi di nga xam ndax li ñu defar baax na ak lañ ca de wax ndax noonu la. maa ngi lay nuyu di la sant je crois que yee nga ma ci lu bare donc loolu mooy problème bi. Mhm. il faut que ñu bàyyi di naxante fii population bi dañu yeewu gis nañu extérieur la fa xaw kon tey kenn mënul taxaw di faagaagal deru euh, Ousmane Sonko li mu ko mën a waxal ne mooy loolu mooy wooy jiiñ nañ ko mais jiiñ boobu c'est un complot politicien. waaw moom au nom de qui lay dem di wax waa askan bi est-ce que moom askan bi dañ koy déglu. loolu mooy peut premier problème bi booy wax ak nit da ngay xool ndax ñi ngay waxal ñu ngi lay dégg wala ñu ngi lay déglu moom defe naa nombre de vues yi mu xaw a am sax temps yi mooy bi mu demee seeti Ousmane son wut fa buzz mais su dul loolu kenn du ko xool loolu c'est clair net et précis et je le précise tout de suite premièrement deuxièmement le conseil économique et social dafay conseiller président ci affaire économie ak sociale. na réglé problème boobu defe naa amul dara lu mu fi réglé moom ba mu toogee ba léegi déggoo léegi mën na 97 pour cent de nos entreprises sont totalement dans l'informel quelle est la solution du conseil économique et social pour euh, la formalisation des entreprises nañ ma ko wax et pourtant le rapport est là ça a été produit en 97 97 léegi ñaata ñaata at la mais conseil économique et social ban conseil la joxe ci nan la ñuy def ba entreprise yi formaliser wu nan la ñuy def ba entreprise yi am transfert de compétence ak de technologie nan la ñuy def ba ñu fa nekk formé wu nan la ñuy def ba ñooñu di li ñu doon gagné ñuy gagné double am mu permettre leen ñu mën a fay impôt kon ma expliquer ko mooy lan. parce que man loolu mooy sama domaine de prédilection. man lu may def damay expliquer lu nga xam ni day jëriñ askan bi askan bi laaj bi ñu leen di laaj dinañ leen ko laaj nañu bàyyi ñëpp dem élection askan bi ñoo souverain. ñoom dinañ ne hey ñun de kii la choisir dafa am koo xam ni dañ ko jiiñ viol gaaña naan waaw lii de viol la nangam mu dem déclarer mairie gañe ñëpp au la kooku xam nañ ko <laughs> ñu koy xeex ca législative ya ma ni ña mu àndaloon gañe législative ya waaw loolu rek mooy problème bi Idrissa loolu mooy problème bi kii ñu doon jiiñ viol dafa dem ba sa yàgg mu dem élection maire mu gagné fa oo laamee yow nga koy gis yow nga perte Thiès wala Babacar Diop gagné la fa kooku ñuy jiiñ viol tey kooku ñuy jiiñ viol tamit moom moo dem ngeen fexe ba parce que ci la bokk complot bi moom leer na ba demul élection législative parce que moom il est le premier sur la liste ngeen yaakaar ni loolu dina décourager Sénégalais yi Sénégalais yi ñëw. daal di voteel fa mu bokk ba lu mosul am Sénégal am Sénégal muy quatre-vingts députés de l'opposition mosta am erreur bi nous sommes dans un monde bu nga xam ni euh, bul wóolu sa ndeyjoor bul wóolu sa càmmooñ hmm. loolu bëgguma ci dugg parce que on fait la politique hmm. mais lu taw xam dafa yàggul dëggu muy déontologie éthique grandeur gratitude union man noonu la ñu tuddee sama parti dëggu dëggu boobu mooy dëgg dina feeñ c'est-à-dire au fond képp kuy def dafa loo nga xam ni dafa tegu ci dëgg parce que tôt ou tard ça éclater donc man li ma mën a wax mooy erreur boobu imputé nañ ko peut-être yooyu askan bi waaye c'est une erreur bénigne bénigne mooy lu nga xam ni du dara mu ngi mel na euh, weñ fàtt la nii ñu ni doo bokk élection ndax weñ fàtt na la loolu mu mënoon nañ ko rectifier rapidement boole kii loolu moo su fi am yii pratique yi ñu gis ci ñoom ci ñoom Macky Sall ak moom mi ngay conseillé parce que dégg naa bu doon man la parce que moom dafay conseil parce que dafa naan bu doon man la mhm. dégg naa mu ni bu doon man la dañu koy jël le vingt et yow la jéem nga jël waaye ba nga jëlee tàng na ba nga sànni ko kon nañu reetaat suñu bopp nañu xam ni sénégal yi kenn ni leen nax nañu xam ni yooyu ñuy def maa leen ko dàq foofu bu ma neexoon bu ma dee wax nga mu mel moom la moom mooy wax je ak Euh, engagement damay waxee ak détermination damay wax ak dëggu man du ma nekk di raay di wut terme fu mu nekk ci sama bopp pour muy ñëw nday pend ak noonu non moi je de ça secretaire général adjoint membre euh, di secrétariat général euh, et du bureau bu parti politique euh, bi nga xam ne moom lañuy ñuy wax Pastef. waaw suñu cadre yi ñuy jàpp dafa jaaduwul du dëgg du yoon te ñun véritablement du ñu ko dangu gis nañ ni képp ku ñu yaakaar ni ma ngay doxal ca biir Pastef ñu jéem la jiiñ loo xóor bu ko defee ñu jéem la duural mag ñaa koy wax duural bu ko defee mooy ñu teg la tuuma daal di lay jël yóbbu la prison loolu yàgg na fi. mais loolu doxalul réew loolu du dëgg loolu du yoon loolu duñ ko nangu ñu ngi doon def marche pour la libération des détenus mu mel na dafa gën takkanaase moi j'invite la population à marcher nañu demander euh, autorisation ñu joxuñu ko ñu nekk deux millions trois millions de sénégalais wan que ni dafa war a libérer ñi nga xam ni mooy prisonniers politique yi parce que defuñu dara marche boobu na nekk toujours dama koy préciser lu nga xam ni du am toj du am yàq ñu fexe ba ñu autoriser ko ñu wan ko en position ku nekk na nga boot sa loxo dem place de l'Obélisque wala place de l'Indépendance boot sa loxo wane ni man de sànniwu ma saagawu ma toju ma waaye dinaa am nombre bu nga xam ni bu ma ko indee l'opinion nationale et internationale dinañ xam ni ñii ñëpp d'accord ñoo Macky Sall bu ko defee loolu moo significatif il faut que ñu def loolu parce que bu dul loolu lii ñuy def dañ koy continuer te lii jëmul kër day indi xol bu tàng day indi fitna ci réew day indi ñu nga xam ni véritablement dañu war a liggéey ñu xañ leen seen liggéey Diomaye Faye c'est un cadre de l'administration tey xañ nañ ko liggéeyam ñoom te dossier yam waroon traité du ko traité loolu Diomaye Faye sax moom cadre de l'administration la mais damay wax keneen ku nga xam ni mi ngi tudd Mouramane Kaba Diakhaté muy Kaba Kaba c'est un entrepreneur il emploie combien de gens de man dama ni nañu encourager entrepreneuriat nañu fexe ba entreprise yi di dox waaw yow nga fekk ku nga xam ne dafa yore entreprise ngay jéem naan da nga koy takkal ay looxóor yu nga xam ne gisuñu benn preuve ba tey nga jël ko denc ci kaso bi koo xam ne du daw koo xam ne tey boo ko génne woon takkal ko takkal ko bracelet mu dem mu dem yoonam koo xam ni dafa am liggéey ak lu muy jëriñ ci réew bi ndax Macky ak gouvernement am ñoom lañu ñu sant ñu fexe ba facilité nest les entreprises ñu mën a créer emploi ak créer richesse dégg naa Innocent Sam Ndiaye di wax ni oui euh, état du créer emploi oui kenn waxul ni état mooy créer emploi mais état dafay créer les conditions mm-hmm. favorables aux entreprises pour ñu mën a créer ay emploi mais bu fekkee da nga jël lépp lu nga xam ni euh, liggéey la nga jox ko entreprise étrangère yi yow sa entreprise yi nga ni amuñu doole waaw yow yaa leen war a jox doole yow jaay jël sa ay doom formé woo leen di jël liggéey bi di ko jox ñeneen bu ñu waxee nga ni ñooñu formé wuñ leen mais formation bi yow la transfert de compétence bi yow la kon ñooñu dama leen di tontu di wax ni nañu bàyyi caaxaan te ñu jublu ci liggéey arrestation yi caaxaan la ku mel na Mouramani Kaba Diakité entrepreneur la benn entrepreneur ñameetul presque prononcé wu entrepreneur yu bare dañu toog lem seen genn xool lii xew mu naq di leen mais du ñu mën a am camp politique parce que li fi nekk mooy. boo dañoo ragal ñu ñu viser seen intérêt. boo bokkee ci camp euh, pouvoir bi. Mhm. mën nga bañ fay impôt. amul problème mais bu fekkee nekk nga camp de l' waxuma la dinañ la teg ay impôt ba teg la luga xam ni weesu na impôt fexe ba daaneel sa entreprise. du ma tudd turam am na entrepreneur bu doon ànd ak man biram dama ko jëloo ñuy ànd di waxtaan ci kii parce que man. am y' a beaucoup de yu nga xam ni dama ko xam si affaire entreprise parce que dama doon nekkoon ci benn cabinet mhm. d'expert di jàng foofu affaire entrepreneuriat mais waa ji dafa toog ba si yàgg rek ñu indil ko redressement fiscal bu nga xam ni dañ loolu bu ko fayee entreprise bi daan te kooku ku jub la amul ku ko xamul fii si Sénégal entrepreneur bu jub xocc la ñu nar ko daaneel muy négocier ba mu jigi ñu réduire affaire bi mais c'est problème ah, position bi moo tax position bi mu daan jël un jour de dafa mos a ni wax dëgg yàlla gouvernement bi amuñu modèle économique ah amuñu business model no dama lay wax modèle économique bi nga xam ni président Macky Sall moom la teg modèle économique boobu ça ne rime pas en faveur des Sénégalais. Mm-hmm. du tax xale yi am liggéey. système éducatif bii ñu def te ñamewuñ ko dindi parce que ça dépend de la France c'est un système éducatif bu nga xam ni day créer ay nit yu nga xam ni ils auront la tête pleine. mais ne seront ne, ne pourront rien faire de leurs dix or créativité si sa dix lay jóge nit ki da ngay mën a liggéey dara nga mën a produire dara boole ko ak sa xel mais bu fekkee li ngay jàng sa xel da këru et cetera li ngay mën rek mooy ñëw toog di appliquer ay lois comme les magistrats mooy d'abord tête boo dagg xamal ni daggoo ko parce que prison bi ndeysaan euh, ñu bare dañuy yaakaar ni euh, xëy na dafa metti mais ça te permet aussi de te reposer et de pouvoir bien réfléchir pour inventer des stratégies ñu bare seen révolution ca prison ba lañ ko jële il faut faire très attention dañuy trompé wu ba xamuñu luy prison au fond dafa am avantage ca ñoo ma ko war a wax man la may xam naa ko bu ñu yaakaaree ni bu ñu arrêté ni dañuy arrêté réflexion mais le type et libre parce que euh, prison état d'esprit la ki nga tëj prison te deful dara xoolam day gën a féex dafay jàppe boppam comme un martyr bu ko defee day réfléchir ci li nga xam ni yow mii ko tëj kat dina la faagaagal yow ndax boo ko tëjee te tëjoo ko ci lu yoon loolu moo am te nañu def attention ñoom dañuy jàll institution yi des te institution bi yu desee am na lu bare lu nga xam ne boo ko doon def tey jii dafa dul rafet sax si sa der man waxuma sax ñuy topp ay nit naan kii dañ koy topp ak di ko tëj mais dafa dul rafet si sa der nit ki war nga bëgg lu rafet si sa der ñun ñëpp ay gor lañu xëy na dinga dem ba toll fu nga xam ne dañ lay dugal ci ay mbir parce que président Macky Sall mi am na ñu koy dugal parce que kii naan bu doon man la waaye du doon yow Sénégalais yi choisirul mille 2012 yaa ngi fi woon man dama ànd ak benn politicien en 2012 ndeysaan Macky Sall war a war a kii. war a di mu ni ma waaye daay la ancien ministre mu ni ma ku ma ne woon Macky Idrissa Seck mii ak na mu meloon ak réem dina topp ci ginnaaw Macky Sall naan da jàppale man du dëgg mu ni ma àddina moo mën a soppeeku ma ni ko àddina soppeekul nit ñi ñoo yor seen jikko yow yaa xamul woon jikkoom dafa doon wax dafay bàyyi politique dafa doon wax am na foo xam ne bu fa tolloo 63 euh, euh, ans jaralu ko am na ñu doon wax ni mais bés bu Ablaye du wàccee ma bàyyi politique ñoo ñëpp dañ doon nax Ablaye Wade waaye Macky Sall du jàng ci loolu na jàng ci loolu parce que actuellement ñu ngi koy dugal. Mhm. yii ñuy def yëpp dañ koy dugal. na libérer les détenus politiques man loolu laa koy digal maa ko gën a jege foofu que ces gens là nañu waxante dëgg parce que man au moins am na ñu nga xam ni am naa ci ñoom yërmande am naa ci ñoom kii te ñu ngi foofu donc na moytu ñii di ko dugal ëllëg bu dee subir les conséquences wala famille am di ko subir wala ay mbokkam di ko subir loolu. ñii dañuy taxaw fële dem ànd ak ku bees ki bu leen ko nangule xam nga mooy li ma wax léegi tontu bi dafa yomb Pastef ay salafiste lañu hmm. Pastef di gën a yokk Pastef am na ñu xam ni ay rebelle lañu Pastef di gën a yokk Pastef am na ay force spéciale Pastef di gën a yokk mais doo arrêté nit ki da am xel cest à aujourd'hui am na ko ko wax sànq le directeur de campagne de Ousmane Sonko mais c'est président Macky Sall mais c'est lui qui fait sa promotion même affaire Adji Sarr bi yow jiiñ nga ko affaire faf international bi yëpp jot ci cest ñun ñañu xamul woon à l'international ñoom ñëpp xam nañ leen ndax affaire Adji Sarr mais loolu boo ko gisee est-ce que doo arrêté lii ñu toj otom mais loolu ñoom dañuy dund cest le vieux monde nous sommes à l'ère du numérique ils sont dans le vieux monde bu njëkk mënoon nga fekk nit toj otoom dóor def lu la neex kenn du ko gis mais léegi y a les portables y aussi les caméra cachées y a beaucoup de développement technologique yu nga xam ni tey loo def à la minute qui suit Amérique yëg ko président bi gis ko mais loolu est-ce que rafet na ci deru Sénégal organisation internationale yëpp gis nañu acharnement bi ñuy def contre Ousmane Sonko am na 36 organisations de 17 pays africains yu nga xam ni. ñu ngi soutenir la cause de Ousmane Sonko parce que xam nañ ni kii dañ ko tooñ kii li ñuy wax yëpp dara amu ci loolu yëpp kan moo ko def du ñoom popularité bi day gën a yokk ba pare ñoom mënuñu tere Ousmane Sonko bokk élection en 2024 kenn mënu ko tere objectif final bi loolu la ah. lépp lu ñuy def dañu bëgg empêcher Ousmane Sonko mu dem élection en 2024 te loolu c'est peine perdue kenn nit kuy dund mënu ko tax du dem élection en 2024 amul plan B amul plan C amul plan C Ousmane Sonko mooy suñu plan A ba Z. appel bi mooy appelu coono appel bi mooy appelu fitna appel bi mooy appel bu nga xam ni ça demande un ça attire un retard économique le Sénégal est suffisamment en retard. Hmm. bi ñu defee appel avant ñu koy renvoyer dañ ni benn moto bu mu daw Dakar. Hmm. ñëpp xam nañ ni borom moto yi ma leen di nuy en passant parce que sama ay xarit lañu si moto yi la am seen dépense combien de jeunes ñoo xëy suba liggéey ñu keroog. ak livreurs yi ak yeneen. livreurs yeeg ak ñeneen ñeeg def seen liggéey. Dakar dem dikk dawul. Mhm. am na ñu bari ñu waroon xëy seen bérébu liggéeykat amul oto pour dem. waa loolu kan moo ko waral ñu ni dañuy laver honneur Mame Mbaye bi nga xam ni ay la yéwén moo génn bi tribunal. ni je suis satisfait vraiment lavé nañu sama honneur jox nañ ma deux cent millions maa gagné waaw loolu bu amee xam nga ni kon Mame Mbaye Niang ci esprit am amul woon pour di toppaat pour def appel kon am na ñu nekk ci ginnaaw Mame Mbaye ñu ko xam ni ba mu demee nee nañ ko Mame Mbaye ñu ne ah ñu ni ko bàkku nga dem ñu ne ah, ñu ni waaw waaw la nga bugg la ñu bëggoon ñu ne amuñu ko la ñu bëggoon ñëpp xam nañ ko avocat avocat Ousmane Sonko yi wax nañ ko mooy fexe ba ñu tëj ko luy invalider candidature am li jëkkul normal mooy ñu def benn article bu nga xam ni bu ñu la tëjee trois mois wala quatre mois doo mu a nekk candidat article boobu la ñu war a dindi c'est ça qui est normal on ne peut pas dans un pays mettre dans la constitution un article qui interdit n'est-ce pas les candidats d'être euh, à la magistrature suprême parce que on les a condamnés à trois mois de prison c'est ça qui existe au Sénégal et c'est un article dictatorial c'est de la dictature c'est-à-dire on euh, euh, procès euh, diffamation fourre la rek bu la neexee sax nga ni man dama la saaga dama la diffamé bu la neexee nga ni li nga ma wax waxul dëgg dama la diffamé loolu kañ la daan am ci politique au Sénégal les contradictions politiciennes fi lañ ko fekk dàggasante politique nga ni ma mani la mais politique mooy loolu politique da nga may wax ba wax la bu fekkoon diffamation dafay am 7 milliards de taïwan yi moom Idrissa Seck moo ko jiiñoon Macky Sall xanaa kon ñu yóbbu ko tribunal diffamé ko kon naa ne du mën a bokk ak yeneen ak yeneen góor gi dee naa suul leen ko ñoom ñu ngi ci xanaa kon Ablaye Wade jël leen ñoom yóbbu kaso wala mu jël leen yóbbu leen tribunal parce que boobu moo yore woon justice parce que suñu euh, ñoom ñoo mos a yore justice ah ñi fi nekkoon justice moo su fi indépendant presque depuis Abdou Diouf depuis Senghor depuis 1960 ba léegi justice presque dafay gën a ñàkk indépendance am rek. loolu du respect sax si magistrat yi ñoom bu ñuy wax outrage à magistrat ñoom ñooy def outrage au magistrat magistrat bu dee liggéey liggéeyam nga téléphoné ko benn yoon ni ko defal lii defal laa wala nga koy influence yaa ngi koy outre parce que au fond da ko war a respecté fonctionnaire dañ koy respecté te fonctionnaire yi ñu ngi perdre seen respect devant le régime de Macky Sall Alfousseynou Gaye dañ ko topp di mbëkk otom ndax dafa def certificat médical bu nga xam ne akkulaayu taalaam la wax mooy docteur bu consulter aji waaw Alfousseyni Gaye ñu ni ko da ngay da ngay da nga koy boo ko changé wul dañ ko njëkk jox carotte carotte bi mooy ñu indi ko maletu xaalis moo ko wax mu ni du ko jël gor la jullit la dafay am ay doom ëllëg xaalis bii jaralu ko. nday loolu la wax deram aji Sarr yàqu. Mhm. nday xadi ñu ñëw jox ko jox ko mu ne ah, deram du yàqu donc ñooñu nga xam ne dañuy def seen liggéey mu nekk ay fonctionnaire nga ñëw bëgg leen influencer si seen liggéey. ki nga xam ni dafa ni moom du révéler certificat médical ou bien bulletin médical u Ousmane Sonko ñu jàpp ko tëj waa xoolal loolu kon liggéeykat ci moom la ñu sargalul ñoom dañu wuññi sutura liggéeykat jomaay fay bi ñu bekk ñuy liggéey ci place am nga xam ne lii kat bureau la ñu dugg fa di kalaayoona ci couloir yi pour bëgg ko jàpp ñuy wax ñu ni dañ ko doon yóbbul kii loolu yëpp mooy respecté woo fonction publique c'est-à-dire respecté woo liggéeykat respecté woo kii def liggéeyam yow da jàpp ni sa doole moo ëpp ñi nga xam ni ñooy indi richesse Sénégal ak ak ak ak ak kii ak emploi parce que richesse ak emploi moo yore dëkk bu fekkee ne yow ñooñu respecté woo leen danga leen di bëgg dicter seen ligne de conduite te ñu def école de formation ñu jàngal leen éthique jàngal leen déontologie jàngal leen morale professionnelle moo tax maa ngi incité enseignants yi ñu gën a taxaw parce que corps yëpp. faagaagal gën leen ba ñu des enseignants yi ñoo taxawandi te ñu ngi dugg seen biir di leen jaxase ñuy am lu mat mille syndicats loolu du yoon nañu taxaw dooleel suñu bopp enseignant kenn daaw ko arrêté ñuy xëy suba di jàngi enseignant bu ñu arrêté d'une manière arbitraire maa ngi gërëm au passage di nuyu le coordonnateur du wër ndomb Aline Badara Mboup dañ ko arrêté am na beneen daam bu nga xam ne day nàmpal doomam la ñuy indi ci prison bu naam parce que c'est une enseignante loolu yëpp ñu noppi ci. donc seen ñaari coordonnateur que sa ça soit. Euh, oui ndombu ak Nemmeeku Tour. ak Nemmeeku Tour ñoom ñëpp jàpp nañ leen ko jàpp boobu nag man damay wax enseignants yi en tout cas syndicats yi man dinaa def opération toxu de opération toxu mooy bépp syndicat bu fi nekk doo liggéey wala jëloo en charge àqu liggéeykat mhm. ñu jóge toxu dem ca ña koy jël parce que am na ñu fi jël àqu àqu liggéeykat ah. am na ñu nga xam ne liggéeykat bu ñu laal ñu jóg ñooñu ñooy sendika ñeneen ñi nañu fermer boutique dem toogi parce que bu mënuñu mënuñu mënuñu nekk l'un dans l'autre mënuñu nekk ci bii nekk ci bee mënu nekk da nekk ci li nga xam ni mooy li la tax a jóg syndicat lu ko wënd mooy mu fexe ba défendre intérêt travailleurs yi. donc à quoi maa ngi saluer en passant mon ami Dame Mbodj xam nga boo nekkul ci dëgg. da yàkkamti da ngay gaawantu yàkkamti ak gaawantu bu ñu séyee jur doom rëccu lay doon li ñuy yàkkamti ak di gaawantu laa xamul lan la yow procès en appel bu nga xam ni waa ji am na jusqu'au 30 avril pour interjeter appel yow mhm. avant le 30 nga programmé loolu war doyatu la nga juum defal ko 3 mois la sursis alors que moom 2 mois de sursis la am mais loolu mooy yàkkamti ak gaawantu waaye ki ngay jublu moo la ëpp bopp loolu c'est extrêmement important dañ ni moytul ki ngay song parce que boo moytul moo la gën a liggéey ndey c'est extrêmement important donc nañu bàyyi ki nga xam ni moom la ñuy singali appel au pas même renvoi ou pas ce qui est sûr et certain mooy le peuple sénégalais ne va pas accepter que Ousmane Sonko du bokk ci élection yi loolu peuple sénégalais yi duñ ko nangu tey duñ ko nangu ëllëg Pastef du ko nangu tey du ko nangu ëllëg ñiy xeex ñu ni dañuy xeex droit de l'homme dañuy xeex lépp lu nga xam ni injustice la nañu waay waay nañu boo yaay nañu ci boole mbir Ousmane Sonko te xam ni loolu injustice gënu ko rëy au Sénégal no bracelet yi dafa am importance au-delà de tout ça bracelet yi dafa dafa dafa am signification bracelet bi day wan ni yow da nga bokk Pastef bracelet bi day wan ni yow mii kat lii ñuy teg nit ñi neexu la te bracelet bu simple la danga koy takk xam nga mi ngi mel na ñu xëy suba di ñëpp nañu xool ñi ñi d'accordul ci lii yëpp nañu sol yëre yu weex ñu sol yëre yu weex ñi d'accordul ci yëpp dañu takk bracelet ba pare ñi nekk Ousmane Sonko nga xam ni wóor na leen ni Sonko la ñu bëgg en 2024 muy capture 2024 mais nañu takk bracelet mais xanaa xamoo bracelet yi mën na wan l'international yëpp ni ñi ñëpp ànd ak Ousmane Sonko la ñu àndal maa ngi wax ni la ñu commandé woon ci bracelet jeex na Chérif ak ñiy ba commandé bracelet bi maa ngi leen di ñaan ngeen gaawantu euh, parce que cent mille doyul deux cent mille doyul un million de bracelet sax doyul parce que ñin ñi bëgg a wooteel Ousmane Sonko di nga ànd ak moom non seulement ñun dañ ko bëgg wooteel di ànd ak moom waaye suñu ay doom sax dañu soxla ay bracelet parce que xale yëpp koo wax ñu ne Ousmane Sonko donc bracelet yi cinq millions de bracelet sax doyul fii waaw parce que nag ñi nekk en face sénégalais wan nañ leen fu nekk ni ils sont bañ nañ ko ba ñoom bu ñu génnee bëgg ñu leen di ovationné sax ovationné bi ñu bëgg ñu wax leen ko duñ leen ko wax dañ laa leen Sonko ko muy sama xarit Mansour fay dem nga seen louis ñu naan la Sonko Sonko comprendre muy sa patron génn na ñu naan ko Sonko ko waay waay Sonko moo xew dafa wan nag sénégalais yi lu nga xam ni moo tax ñu wóolu ko dafa wax sénégalais yi lu nga xam ni moo tax ñu yaakaar ni kii bu tudd ko joxee réew mi mu doxal ka muy jub ak fulla ak fayda ak fit ñetti F yooyu c'est extrêmement important xam nga maa ngi gis ay nit amuñu fulla ca ñama ko war amuñu fayda amuñu fit waaye amuñu jom ndax ku am jom doo wax tey lii ëllëg nga wax lee ku am fulla ak fayda doo seet si nit tey mu am euh, mbaaxaay mhm. gu day naka recevoir la bu doon biram xujja du la recevoir c'est extrêmement clair du ma ko nangu c'est-à-dire au fond sama yar sama yar sama dara dama ko nangu je ne te reçois pas te loolu moo nekk si xolu sénégalais yi kii nag moom am na mbaaxam ak julliteem bu recevoir la woowoo yaay boo génnee waxal lu rafet ci moom danga nga ni moom ngay attaque yaa ngi attaqué sa bopp yaa ngi attaqué sa bopp yaa ngi détruire sa bopp parce que kii moom mi ngi nekk gor ñëpp xam ni gor la ñëpp di waxal ni gor la ñëpp topp ko ngir gor la yow nga ñëw fa di wax leneen waaye kon yaa ngi tiire ci sa bopp mi ngi mel na nga tiire jël bal teg ko ci miir bi lay dellu si yow parce que Ousmane Sonko miir bi. Ousmane mënul à chaque fois muy wax di wax di wax la mu waroon wax yëpp wax nag bañ nañ ko ba bu heure ba jotee dañ naan. écoutez le discours de Ousmane Sonko ñëpp branché di xool ñu wane discours bu passé wax nañ dëgg wax nañ dëgg parce que discours yi bu ci def dafa doy def na discours wax ca ba mu amee njëriñ wax ca ba mu jotee wax bu baree day joxe asaka yàgg naa ko wax wax bu baree rek génn asaka donc Ousmane Sonko stratégie de du silence mais c'est plus parlant que la stratégie de la parole donc lii moo tax ñu jaaxle lii moo tax ñu jànnaxe lii moo tax ñu jàpp jomaay fay lii moo tax ñu ñuy yëddu ak di ñu yër ak di wut lu ñu jàppee jomaay amul nit ku ko gën a correct ci àddina je le dis man xadar bi ma àndal jomaay àndul ak xadar boobu jomaay lu muy wax da koy mesurer jomaay dafa doon inciter nit ñi sax ne ah, attention def leen ndànk waaw ñu ñëw jàpp cest au fond ñoom xooluñu buñu bojj ak bu ñu soq ñoom dugub bi lañuy ñuy wër fu dugub nekk dinañ ko wuri loolu la ñuy def te loolu jëmul kër lii ñuy def nañ ko bàyyi parce que Sénégal bindoowul nii te lii président Macky Sall di def c'est une première au Sénégal musta am bokk ci xeex bi troisième mandat lañuy ñuy xeex injustice la ñuy xeex Idrissa Seck tey waroon nañ ko gis muy signé foofu gis naa fa Mimi Touré muy signé je salue en passant mon ami euh, euh, euh, comment il s'appelle encore euh, le le le le le responsable de Bougane là waaw Guèye Guèye bi nekk au niveau des parcelles léegi laa teqali ko moom. maa ngi koy nuyu Guèye original mooy moom la donc di ko nuyu en passant gis naa leen fa ñoom ñu signé gis naa sax ay transporteur ñëw di signé parce que nit ñi dañoo sonn loolu Ousmane sonk dafa fay dem signe parce que dafa am lu ñu bokk ñoom di ko xeex gis nga dafa am lu ñu boole am lu ñu teqale la ñu teqale ku nekk na dem bay kër papaam li ñu boole mooy tool bu mag bi ñun ñëpp nañu ñëw bay ndax tool bu mag bi mooy jur tool yu ndaw yi mën a naat tool bu mag bi mooy ñu bay le troisième mandat bi président Macky Sall bañ ko def ndax loolu mooy jàmmi Sénégal mais réew yu tàkk yu bare troisième mandat ñoo ko taal donc j'attire l'attention de l'opinion internationale une fois de plus sur ça sur le troisième mandat que le président Macky Sall veut faire il y a une organisation qui compte plus de 60 n'est-ce pas membre des mouvements des partis politiques et tout qui veulent barrer la route au troisième mandat comme l'avait fait président Wade Mais l'international a son rôle à jouer. Les organisations internationales, les organisations des droits de l'homme, les organisations africaines doivent intervenir avant que le feu ne s'allume au Sénégal. Il ne faut pas attendre que le feu s'allume pour venir euh, aux, euh, aux sapeurs-pompiers. Non, il faut avertir, il faut donner les gages pour que quand même la paix puisse régner au Sénégal. Nous n'avons jamais eu de querelle interne. Aujourd'hui, il va falloir que tout tombe, tout, tout mouvement épris de paix de justice puisse quand même aller dans le sens de décourager président Macky Sall qui veut faire un troisième mandat donc troisième mandat boobu day taal réew nañu fexe ba ñépp ñi nga xam ni am nañu kàddu waxuma la Sénégal rek mais surtout l'international ñu wax pour que Sénégal mën a am jàmm parce que ñoom dañu am seen intérêt fii tey jii bu ñu tojee yenn affaire yi wala ñu kii wala kenn jaayul wala ñu toog journée comme journée bi ñu def keroog mambay ñaar rek waral ka loolu jaaduwul may gërëm di sant je salue monsieur Pierre Goudiaby pa qui a pu déclarer clairement que le club des investisseurs n'est pas d'accord pour l'instabilité du pays effectivement club investisseurs yi ñoom ñoo yore suñu santé économique loolu réew yëpp dañu bëgg ñu ñëw foofu mais dañuy ñëw ci réew mu am jàmm te li ñuy gis ay prémices la yu nga xam ni dafay ñuy yóbbu ci ay kon Pierre Goudiaby Atepa la nga wax mooy la nga war a wax la nga wax moom la Babacar Ngom wax la nga wax moom la Mbagnick Diop wax la nga wax moom la homme d'affaires yépp wax ndax ñoom stabilité du pays moom moo leen gënal ba pare am nañu lu ñu war a régler lu dul di jël policiers yi à chaque fois nga xam ni imam taal rey nañ ko Grand Yoff am na ay crimes yu bari yu ko xam ni c'est non élucidé ñu bëgg ko xam bëgg am enquête yi waaye waaye dëkk bu mel noonu nañ jël policiers yi dugal leen ci gox-goxaan yi pour ñu indi suñu sécurité am na école bu nga xam ni fii parcelle bu 18 heures jotee wéyu yi ñëw dugg ni génn leen ñu dugg ñun fa la ñuy fanaan kenn mënu leen dara waaye yooyu nan lay amee demal suufu pont bi ci Grand Yoff police amul liggéey gendarmerie amul liggéey waaye waaye nañ leen respecté respecté police respecté gendarmerie mooy nga bàyyi leen ñu def seen liggéey normalement bañ leen di jañax ci lu nga xam ni dañu fay toog si suba si ngoon te duñu gis sax procès les étudiants socialistes boobu fekk na man ma ñëw booba ñëwaguma les étudiants libéraux fekk na ma ñëw ñëwaguma les étudiants de l'APR fekk na ma ñëw ñëwaguma kon lan laa lan la li ma def xanaa si ñoom laa ko jànge loolu ça fait partie de la société l'université est pas un monde à part <laughs> université bi suñu kër yi la ñuy génne kon ñun bu ñu amee sa papa man dama am ay étudiant sa papa bu amee problème ci biir kër gi waaw yow da nga koy ressentir foofu ci université le euh, le Sénégal est un et indivisible secteur de l'éducation bu ñu nee bu fa kenn dugal affaire politique mhm. mooy bu fa kenn dugal affaire politique politicienne mais politique mooy luy doxal réew loolu véritablement secteur de l'éducation dañ ci am cër dañ ci am cër moi je suis un éducateur bu ma génnee damay def def fi politique boobu dama koy def pour que école bi baax pour que ëllëg abri provisoire yi jóge fa pour que ëllëg université nit ñi am des conditions de travail favorables parce que fi mu ne nañuy liggéeyee doy des na professeurs yi fa nekk ba léegi seen condition des na euh, boo xoolee secteur de l'éducation ñi nekk enseignants yi instituteurs yi surtout ñu ngi am ay problèmes par rapport à beaucoup de choses ay dossiers yu nga xam ne avancé wul. mais looloo tax politique mooy régler loolu yëpp. donc mënuñu dissocier politique ak éducation politique ak agriculture politique ak pêche parce que dafa am politique éducative mais ça doit aller dans le sens de développement. bu fekkee nag yaa ngi jàpp ay nit fekk dañu bokk ci benn kan wala bokk ci beneen camp kooku yaa ngi faagaagal li nga xam ni moom moo war a am porte politique muy fexe ba éducation dox. éducation boo bëggee mu dox da ngay mettre enseignants yi dans les conditions da leen di préserver fonctionnaire du n'importe qui ñoom dañu bawol bawoliser la la la la euh, la fonction de de fonctionnaire je n'ai rien contre bawol bawol mais ñoom dañu yaakaar ni fonctionnaire moom mooy kii nekk ci mbedd mi rek Samba Boy ba nga xam ne lu la neex def loo ko nañu respecter fonctionnaire un fonctionnaire de l'État bu ñu ko respecté wul état ba du dox réew ma du dox nañu respecter les travailleurs. travailleur moo yore réew mooy créer richesse mooy créer emploi moo yore développement bu ñu leen respecté wul lu dul di leen faagaagal à chaque fois wala di leen dugal ci yet détails mais loolu réew mi ça veut dire que ñoom du ñu nekk ñu patriote sama message par rapport euh, au partie par rapport au projet mooy li may jiital mooy Sénégal d'abord ndax Sénégal dañu ubbi li ñuy woowee liste électorale yi mu nekk révision exceptionnel ñun de waxuñu woon loolu révision ordinaire six mois moo normaloon waaye comme léegi ñoom ñooy jël décision jël nañu révision exceptionnel waaye waaye kontaan naa bu baax léegi la sama ñaari doom yu jigéen dem bindu ji ma ni leen seen xarit yépp nañu def noonu képp ku am 18 ans demal nga bindu ji képp ku nga xam ni amoo woon carte d'identité wut ka am nga occasion bindu ci élection euh, électorale yi amaale carte d'identité loolu na ngeen ko def parce que da ngeen bokk ci ñi nga xam ni yéen a war a changer réew mi réew mi seen réew la ñun suñu jamono wéy na dañ leen di accompagner kon yéen ñi am 18 ans wala ñi nga xam ni même bu ñu demee ba le 25 vingt 24 février dina fekk ñu am 18 ans ñooñu ñëpp dañ leen di enrôler euh, kontaan naa trop ci li nga xam ni rush bi nga xam ni ñëpp a nga daw di bindu ji waaw loolu baax na. mais bindu bi yombul de. yombul bindu bi yombul. am na fa ay problème looloo tax may wax. Mhm. problème bu ca munti am. fexe leen ba insister ba bindu fukki fana ci des maanaam kon war ngeen taxaw takku fépp bindu taxaw takku fépp bindu bu ko defee bu ngeen ko defee loolu dina leen permettre le 25 février ngeen décider li nga xam ne moo fi war a am ci réew mi loolu mooy premier message bi may lancé deuxième message bi mooy mobiliser wu leen contre l'injustice à chaque fois. ndax injustice mooy tàndal réew lii dëgg ak li dul dëgg ñëpp xam nañ ko xale bu ndaw tey boo ko rombee mu ni Ousmane Sonko dañ ko singali kooku ñëpp ko xam kon nañu taxaw tem pour kenn bañ ko empêcher mu bokk ci élection présidentielle yi di ñëw parce que même Afrique ñu ngi taxaw di ñu seetaan te ñoom ñëpp dañ ni la révolution citoyenne patriotique pacifique va venir du Sénégal. Et c'est une révolution qui va consacrer la rupture avec un homme digne, un homme épris de paix et de justice, un homme de développement, un homme qui a le sens de l'écoute, un homme qui aujourd'hui est un panafricaniste, n'est-ce pas, chevronné. Donc, kooku nañu fexe ba le 25 février ñu tekk ci boppu réew mi te li koy indi mooy ngeen dem bindu ji képp ku binduwul demal am nañu tayal xëcc leen leen yóbbu leen leen jàpp leen leen ñu dem bindu parce que loolu suñu droit la te droit boobu buñ ko jëlee ci yow ñay décider ki war a toog yow doo ca bokk kon yow loolu bàkkaar la sax si yow kon gouvernement bi moo waroon def ay spot yu mel nii pour que nit ñi mën dem di bindu ji man de temps Abdou Diouf la muy bon bon daawoon naa gis ay spot ñu naan bindu ji leen bindu ji leen jël ay tamat ay sabar di dóor taaw Ablaye Wade mm. da nga daan dégg fu nekk ñu naan bindu ji leen bindu ji leen bii jamono nag defe naa ragal daf ci am ak euh, kii dafa mel ne dañuy découragé ñuy bind parce que ki maa ngi lay nuyu en passant en France nga xam ni ba ngay bindu am nga tous les problèmes du monde waaye insisté nga ba bindu ci liste électorale yi am na dëkk yu nga xam ne aussi wax nañ leen dañ fa war a ubbi révision exceptionnelle bi waaye ubbi wuñ ko fa ñooñu ils sont obligés ñu déplacer wu ci diaspora bi dem beneen dëkk pour bindu yooyu yëpp c' est des problèmes. nañu teg Espagne Espagne tam ah. loolu la ñuy def cest dire au fond ñooñu dañu taxaw xeex waaye xeex du solution nañu fexe ba bindu cest dire même boo dee xeex xeexal pour bindu souvent am na ay stratégie yoo xam ni mën nga ko teg ba nga xam ni dinga fexe ba bindu ba pare maa ngi ñaan aussi population bi. muy politiciens ak ñëpp opposition bi ak ñëpp nañu xeex pour que ñu def une autre révision balaa élection yi di ñëw parce que au fond diir bi dafa gàtt trop te ay millions de jeunes. société civile mu ngi koy laaj parce que. ñu ne 30 euh, kese. dafa est une demande sociale. Mhm. c' est une demande sociale aujourd'hui war nañu mën a ubbiwaat révision yi wala ñu prolonger ko jusqu'au 30 31 mai wala ñu prolonger ko ba juin. loolu war nañ ko mën a def dara terewuñ ko